Euh, mbég ci lu mag a mag a mag a mag mag la am tey ñëw sa makkaan bi fekk si fi te xam yaay kan ndax dañ li dégg ngay wax te fekke nañu nag yàlla daf ñoo may ñu fekke aussi jamonoy sa kilifa ji El Hadj Abdou Aziz Sy na fii fekk nañ jamono commandant de cercle yëpp fekk nañ ko te dañu ah, bokkon ci parti bu doon xeex ñu wax doon ko PAI euh, ñi toog fii nag day ne ay mag yi Pastef lañu boo ne fii Sénégal dafa ay mag ñoo xam ne dañoo seetlu réew mi ni muy demee gis ne am na ay gune yoo xam ne takku nañu te ñi ngi xeex li ñuy war a xeex pour réew mi soppeeku jëm kanam te li nga xam ne comme ni ñu ko waxee ci Pastef li ñëpp bokk ñëpp jot ci parce que foofu la suñu problème nekk li ñëpp bokk ñëpp dañ ci jotul. dafa am ñu ko féetewoo di ko di ko yàq def loolu moo waral tey suñu réew benn yi coow li bari na lool li gën a fës di métti ñëpp mooy suñu doom yi nga xam ne dañuy jekki rek ci tefes ay néew teer ndox mi génn ay néew ñu ay ndaw yoo xam ne dañuy dogg dugg àdduna tey jii boo demee hôpital doo mën a faju école yi doxul mais loolu yëpp li dafa nekk ci kaw la ko waral nag dafa am reen mooy ki nga xam ne mooy France colonisé woon ba ñuy dem indépendance dañoo nax nañu indépendance dañ koy demee ñaari tànk benn tànk politique benn tànk économie waaw politique bi nag lañ di jox mais économie dañ koy téye économie nag mooy li ñuy wax création de richesse foofu la alal ji nekk mais ñoom buñ ko téye bàyyi ñu bàyyi leget euh, legeti neen moo tax réew mi fii mu yegg mu yegg fii kon nag bañ gisee ñun ay ndaw samp Pastef ñu gis ni ñuy xeexee ni ñuy bëree ñu ne kon ñun ay mag lañu te wax dëgg yàlla war nañ leen jàppale fu mag nekk Sénégal te te nangu te d'accord ci xali def ñu def benn mouvement tudde ko magi Pastef yàlla def na nag daaw ci wax ci weer wi la vingt quatre août la ko Ousmane taxawaloon fële te le vint huit ñeent ñeenti rek moo ci tegu muy at mi macha allah bëri na léegi Sénégal ba mu ci bitim réew. foo dem am na màggi Pastef léegi ñooñu nag ñoo la ñoo tey seet si la parce que li waral li yëpp yëpp économie boobu tubaab yi téye jox ñu rek politique bi moo indi lépp waaw Ousmane nag ba mu xalaatee daf ne politique bi yàgg na fi lu ne nii def ko mais taxul mu soppeeku day gën a dellu ginnaaw mu ne loolu lan moo ko waral li ko war dane c'est un système système boobu nag nee dañ ko war a euh, gor gor ko mu daanu ñu gas ko suul waaye nag système boobu dafa am ñu muy nàmpal ñu muy dundal ci bépp fan nag ñu muy nàmpal ak dundal ñoo coaliser contre Ousmane di ko teg li ñu koy teg di ko médecin médico bi koy def te dellu ginnaaw ba tey fee tey ma nga fee tey kasu ba nekk diggante ak dee ni ko may waxee nag am nañ ci yow parce que ku nekk lay la may man inspecteur des impôts laa woon kii ma nekk euh, inspecteur douane kii ma nekk magistrat kii sa yow da am foofu pété ci diine ci li xam ne mooy ñaari kenn yu diine yi mooy alxuraan ak addis yonent bi te gis nañu am na lu si yàlla may ñu waxtaanee ko nag nañ la seet si fi ñu toll ci sa wàll sa tool ñu jëm ñu jëm cee béy nga jàppale ñu si pour que Ousmane génn pe mu nekk pour que suñu parti dem ci élection yi te ñun dañoo wóolu suñu bopp moo tax ne wóolu ba mu wóolu suñu bopp moo tax ñu du ngeen dem Ousmane du bokk ci élection yi parce que xam ne boo ku mu ku mu ku mu ku mu bëree rek daal la ñoom ñëpp nag ñu coaliser ñu bëgg a dem élection yëpp nañ ko fa téye na fa dafa dee na fa def yëpp mais yàlla moo yore lépp waaw yàlla nag moo yore lépp waaw da am sa yéene mais yàlla mooy mooy mooy mooy dogal ñu nag si seet si la waxtaan ak yow wax la suñu bëgg-bëgg suñu suñu tawat te xam ne am nga loo ci mën a def ci kaw dañoo gis wax ji nga doon wax si ci weer yi passé xam nañ sa position xam ne nañ ni mu leeree xam nañ ni mu jubee xam nañ ni mu dëggoo moo waral suñu tànk yi ñu ngi lay sant bu baax nag ñu la gërëm. ci mbir mi nga xam ne ëlëm nañu ub suñu bopp ñu ngi ñuy waxal waaye ñu ngi ñuy waxal ci suuf. ma cité nak ñaari kilifa sama ñaari mam muy Cheikh Abdou Lahad Mbacké yàlla yàlla yok leeram di Cheikh Abdou Aziz si sunu soppe sunu xarit yàlla yok yokk leeram ñooñu de bu réew mi tollon fo xamni waxuma jege na fii waaye mel na waxuma mel ni waye waaye jege na fii àggugul woon sax fi ma jël ci exemple sunu mam Abdou Aziz da daan wote sa zawiya ba ñëpp tok waxuma nak waxu suuf baxul waye waxu suuf ki nga koy xamal du ko du ki ki koy defal du ko xam. duko xam mom da nan wota sa zawiye ba ni diw li day nga yon sama jortu may ma mu jëm fu bax tekal suuf diw ni ngi koy doxale nu ni tegal ci suuf diw defal ni fu mu ko waxe ñëpp deg ko jam am xel yëpp feex dana tax sax ñi daan préparer pour contester suñ ko dogé seen xol feex ñu dal ñey jité te bëgg déraper seen xel delo ci len ba jam am yàlla ñu ko yàlla fayal loolu moo taxoon ñu ñëw si di ñaan yàlla nga waxal nu fu sa fu sa baat àgg suñu baat mënu fa àgg ñu teg lépp nag ci dëgg rek ci li nga xam ne moo neex sunu borom ci jàmm rek dañu jàppoon firndee ni dañu tooñ te amuñu doole buñ ko xeexee leneen lañ ko mën a xeexee yàq lay doon te nag ñi mën a wax bu ñu waxee rek jàmm am alhamdulilah rabbil alamin kon suñu ñëwee ci yow yaakaar rek moo ñu indi ak jaaxle. te olof yi dañuy wax ne kuruy la doo tàyyi laax te ku la am macha allah ci gan ba yàlla wéyee xelam war na dal tiitoon nañ de mais ba ñu gisee nga dugal sa kàddu dugal sa loxo suñu xel dal ñu am jaaxle nag ndax le président Ousmane Sonko dañu ànd ak moom rek ci at ànd ngor ak àndu dëgg xamaluñ ko benn tappale 2014 ba tey ñu ngi ànd ak moom. lu mu ñuy wax tey rek bu subaa même chose la ñuy wax am dëggu am gëm yàlla amul benn tappale yi fi jaar yëpp ñoo ko moom a ànd kii toog du ma bàyyi ma fen ñoo ànd ak moom bi ñuy toj otoom ñoo ànd ak moom bi ñuy lacrymogène ñoo ànd moom bi ñuy sotti ndox mi ñoo ànd ak moom xam ñu ndoxu lan la nak waaye bi ñu koy sotti daal liquide boobu ñoo ànd ak moom kon nga xam ne mosul a bañ a ji ñu véhiculer nag ci presse bi dafa nangu la dem respecté wul nii mais du loolu le respect est réciproque dañ ko respecté wul salfaañe droit am yëpp salfaañe léppam weer ko di ko wax wax yu ñaaw te it man dama jaaxle ci Sénégal mara bi yàlla dogalee Ousmane nekk sax ci tabje yi xanaa xanaa noppi jot nag mais tey la wàllu gën a aay ñu nekk ci télévision yi di xas koo xam ne mënul tontu. di xas ay soxnaam di xas ñi mu àndal te kenn wu leen déet moom daal dañoo jaaxal simalik Malick te it ñu xàmmee leen ñoom ñëpp bëgguma tudd tur mais am na koo xam ne ku jigéen koo xam ne da daan wax toujours ne balaa may kontaan ñu tëj Ousmane Sonko nga nekk ci télévision di wax loolu am na ku fi wax balaa may kontaan ñu rey ko xanaa du benn nit rek la jaru ko fi loolu yëpp jaar na fi si waa léegi nag ñun waruñu tontu suñu tontoo ñu ne waa Pastef yi ñoo tontu te ñun waxuñu dara lu ñaaw ma lay seedal ne kuy saaga bokkul ci ñun ndax man jaar-jaar bi ma jaar ak maam Abdou du ma ànd kuy saaga kilifa diine ñun xamuñu saaga xamuñu wax lu ñaaw suñu leader nag buñ ko defee yenn yi léeg mu tontu tey tontu day jot ñu bëgg nag ku ñu jàppale ci wax yu ñaaw yi mu gàtt jàppale ñu ci feemu ne mu jóge fa ci jàmm ci kantanu yàlla jàppale ñu it ñu def élection yi dans de bon conditions ku gañ a jël. Sénégal Pastef rek moomu ko ñëpp ko moom waaye ku ne am nga droit tànn ñu nag suñu yaakaar ak suñu yéene ci Ousmane la ne nañ ñu may occasion bu ñu ko bu ñu ko ko wanee ñu may ñu occasion bu ñu wanee waa Sénégal ne lii mooy suñu tànneef lu ñu yàlla may nag ñu jël ndax nag yàlla mooy décidé imposé ñu dara mais nañ ñu may mën a def suñu droit ci kiñ ko bëgg waaye ni ñu gis ñuy doxale boo demee ci euh, procès bu njëkk bi la loi dit plus de six mois man waxuma ko de mais Me Doudou Ndoye nee na plus de six mois mooy six mois bu teg benn fan bii nag six mois juste la amul ana amand amende moo ko doon yàq mais amul amende kii moo am euh, indemnisation kon bobu boobu premier procès yàqalu ko dara yàqalu ko mu nekk candidat juridiquement kon nag am nañ droit ànd ak sunu leader bi ci topp dañ ne contumace boo jàppee borom jeex na nga jàpp borom ne ne contimence bi mu ngi continuer koy wër ba gis ko nga ne gisoo ko loolu moo ñu xaw jaaxal deuxième bi aussi moom def na non acquiescement mooy lii ngeen ma defal bëgguma ko gëwuma ko d'accord ma ci dañ ko war a reprendre ñu bëgg dindi loolu yëpp teg de côté bëgg rek sonal ko sonal ko si Malick am suñu yaakaar nag Safiatou Aram Bonko ñëw seet si la ñaan daal nga dugal si sa loxo jàppale ñu ci nga mën ci biir ak si biti ci kàttanu yàlla sa barke baay bu baax ba sa barke maam yi ci daraju yonent bi alayhi salaatu salaam. alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbi nit ki bëgg-bëgg lay am ak yéen a di ñaan nag waaye boo xasee ñaan da ngay bàyyeek yàlla li ci des lépp ndax ñun ñëpp xam nañu ni faalun lima yurid moom yàlla leneen lu la nit mën a wax daf lay nax buur la boo xam ni dafa sañ kàttanam ak sañ foo ko takk weesu na ko ma yëkkati ay nuyoo yu tedd jëme ko ci yéen góor ak jigéen mag ak ndaw di leen ziyaara bu baax a baax te di jéggalu jéggalu bi may jéggalu mooy su ngeen ma woowoon ci barab ma fekk si leen man yàlla xam na ko ndax loolu lañ ñu jàngal ki ñu yaakaar tey ak ëllëg muy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam noonu la dunde ba xëy sàngoo suuf ci modestie ci simplicité kon su ngeen ma woowoon ci barab man dinaa leen fekk si ma nuyu kilifa gi ngeen àndal góor gi àlla kan nga xam ni moo jiitu moo jiite magu Pastef yi di nuyu tamit jigéen ñi di nuyu soxna Ayda Njaay bi doon wax legi momitam ak ñimu andal ñep di ay jigen waye ngeen bal ma ma nuyu sama dom jele yaay daba ma ngi koy nuyu momitam bu baax a baax ndax euh, ci walu papa mak walu yaayim yep suma ko ne jak rek am lu bare lu sama xel dem kon ñu ngi lay nuyu bu baax baax li ngeen fi wax yep sama ça yi may Il nag waxuma ci turu Tiwaawan il faut que ça soit clair waxuma ci benn ndigalu kilifa sama engagement bopp laa jël di ci wax en tant que citoyen sénégalais bokk ci réew te dara umpuma ci li ngeen may wax faut ko début à la fin lépp suivre faut début à la fin ndax saa boo waxee kenn génn ni moom day waxul ci ndigalu Tiwaawan il faut faire la part des choses Tiwaawan dafa am ñaari anam yu yu ma ci bokkee benn bi ci wàllu famille la kenn ku nekk am nga sa famille man sama ay kilifa laa am lu ñu wax ci famille bi je suis entièrement d'accord nëbbatuwuma li may wax xalaatuma ko waaye bu dee gis-gisu àdduna nag je libre bu dee gis-gisu àdduna je libre kenn ku nekk itam ci ñun ak keneen ku dul ñun am nga gis-gis boo am nañ la bàyyeeg sa gis-gis rek loolu mooy démocratie ceebu géej ma gënal ceebu yàpp ku ne sañ na ko waaye waxati na waxul ci kàddu Tiwaawan waxul ci kàddu kilifa yi lii sama gis-gisu bopp la ça n'engage que moi encore une fois loolu lay wax tout le temps ngeen ñëw fi nag wax waxu réew mi ñun ñëpp a ko bokk ku ni damay seetaan bis buy takk du la fa bàyyi sëñ Saaliwu Mbàkke rahmatullahi alayhi wa radiya anhu moo daan wax waxam ju siiw ja mag ñëpp wax nañu ba sonn ba sàngoo suuf ñuy seetaan rek naan jaru ko jaru ko matu ko matu ko ba ñu yegg foo xam ni bu yàlla sànniwul yërmandeem àdduna tukki ci suñu kaw situation réew mi fii mu toll nii ku tëdd sa néeg te am xel di xalaat rek jaaxle nga ci domaine yu baree baree bare maa ngi dégg fan yii liy dee ci géej gi kenn xamul nu mu toll ñu dem a dem a dem ba suma juumul dégg naa ci rajo am na ñu doon pare pour embarquer ñu dóor ay bal ba kenn dee ci encore dégg naa loolu ndax loolu mooy solution lan moo waral li tax xale yi di dem leketu kese naxul yi béy xale yi toog leen toog leen toog def lan encouragé wu li xale yi di def de mais dañuy waxante dëgg

situation bi li koy régler mooy alal ji nekk ci réew mi ñu di ko dugal foo xam ni parce que ay priorité dafay am kenn bañul ñu def lu baax waaye xale yi la leen di tey encore une fois du lii mooy solution bi nañu leen jox lu ñu téye ñu mën a toog daan seen doole teral seen ay waajur loolu rek a leen yóbbu bu dee ci problème mu lii xew ci réew mi muy problème mu Ousmane Sonko il faut le nommer man amoon naa ci gis-gis ba recevoir oon ko ay nomades kenn ku nekk sa gis-gis man dama libre ci li may def parce que nit la jaamu yàlla la ñoo bokk réew mi nit ki nga dëkk di ko xas te toogu leen doo xam lu mu mëneek lu mu mënewul te yàlla dafa ñu ko tere. إن جاءكم فاسق بنبين فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين يلا نينا ديو دافا بون ديو دافا بون غاني مو ييس دوما توغ موم يلا نينا بن نوب باخول توغال بخم سيتال بخم تشامبرال بخم لي خيو لان لا بودي جيل بوزيسيون غا جيل بوزيسيون بودي جيجي غا دوري جيجي man bi ma déggee loolu yëpp ñuy wax dama ni man damay toog ak Ousmane Sonko ci ay numaa di laa ko recevoir ñu bokk toog ñun ñaar xaw ma lu ne ci xolam de yàlla rek a xam waaye avec toute honnêteté dama fa jóge sopp ndax ñaari yëf a tax waxtaan nañu lu yàgg yàgg xëy na duma ko détailler fii wante aaya alquran bu ma commencé moom moo koy eggale xadis bu ma commencé moom moo koy yeggale wax ma ba convaincre ma ma xam ni kii am na ay valeur yu nekk ci moom loolu moom xam naa ko la ko dal booba ba léegi it ak li xew booba ba léegi maa ngi koy suivre kenn nettaliwu ma ci dara gis nga muus mi nga yore ci sa kër wala bàyyi ma bi nga yore ci sa kër boo ko toppee ba mu sës ci miir bi ci sa kaw la jëm ala xaal waaye lu ma nekk lu ma neex teg la lu ma neex def la te doo onk doo jooy kenn amul maqaamam kenn amul maqaamam li xew nag su ma ko dee analyser dinaa ko analyser ci cadre diine سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لون ne نكو pour mission réussir pexe mu ne tegal nañ ko ko pour liquider ko wayé yàlla ci katanam ak mën-mënam bu xasse ba décider limu décider rek kay am wa idh yamkuru bika alladina kafaru li yuthbituuka aw yaqtuluuka aw yuxrijuuka wa yamkuruuna wa yamkuru llahu wallahu xayrul maakirin yonent bi lañ ko defaloon ba ñu demee seet ay pexe ba tàyyi xamuñu nu ñuy def te yëf mi ngi gën di avancer rek ñu dajaloo waa Quraysh yëpp dajaloo ci benn kër di seet solution final boo xam ni dinañ ko mën a def ndax kii noppal leen benn yoon am ñu ni nañ ko rey benn yoon noppalu ñi ni déedéet nañ ko génn dëkk bi ñu ni leen bu ngeen ko génnee dëkk bi bu demee fu ñu ko fate bu amee doole day dellusi bu dellu see ci suñu kaw la jëm si di ñi ni kon nañ ko tëj ba mu dee yàlla nee na ma toog di seetaan rek wa id fàttalikul yow sayiduna muhammad yamkuru bika alladina kafaru ba ñu lay fexeel ñoom yéeféer li bi tuuka ñu tëj la ci benn place ba nga dee aw yaqtuluuka wala ñu rey la benn yoon noppalu aw yuxrijuuka wala ñu génne la dëkk bi wayam kuru na ñuy fexe wayam kurullaahu yàllay fexe gis nga Ousmane Sonko cëram ci biir réew mi kenn mënu ci dara bu waree falu wallahi wal qur'aan al azim dina fi toog yii yëpp ay nattu la yoo xam ni yàlla moo ko jaarale ci moom ndax ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ndax pas-pasam ak ngeum yalla ma tax may waxe ni parce que tok nak mom moom lu mu bon bon bon def nañu 2 heures d'horloge ma xam nit ki ci mom touti ma diko ñaan ma diko ñaan ndax dégg na ba ci soxnaam yi génn bu ñu génn déglu naa yëpp keroog sama rangooñ dal na sama dënn ndax dama jàpp ni nit ki loo ko bañ bañ bañ am na foo yegg ak moom ndax yàllaay tax ak ëllëgay tax dégg naa ko tooxaw ci télé bi dinañ ko rey loolu mooy yéeneen kooku ñu bàyyi ko muy dox di taxawaalu ci dëkk bi façon wax bu ñaaw bu ne dégg naa ko ci àqam moom ak li ko jiitu yëpp déglu naa ko dama leen di wax nag ñooñu nañu nañu nañu riggal gis nga firaaw na muusa ci biir pale ba lañ ko yare te booba jigéen ju ëmb boo dee góor sa doom bu juddee ñu rey ko yàlla nag décidé ni moom Moussa mi ay ndawam lay doon mu jaarak moom fi mu jaarak moom ba xëy def ci moom li mu def ci moom suñu mbokki politiciens yi nañ ma baal dañuy bàyyi dañ dul bàyyi xel yàlla pexe lu mu rëy rëy rëy dogalu yàlla ko fi jiitu dogalu yàlla moo ko fi jiitu xale yi ni ñuy génne nii di def li ñuy def la ko waral du dara lu may kenn ku nekk am nga koo sop des fois dama leen di comprendre kooka nag bu leen jaralee lu ne ñu bëgg koo teg yenn yi bu yàggee rek dañuy fippu ni ñu koy manifester nag est-ce que ànd naa ci walla ànduma ci nañu seet beneen forme bu ñuy doxalee ndax yàq goo xamante ni bii tey jii bu président bi ngay wooteel ñëwee ba toog dafay commencé waat à zéro boobu baaxul beneen bi ci topp mooy Seydina Ousmane. dégg naa ñu ni dafa bañ a lekk bañ a naan version yu bare laa ci am ñii ni dafa bañ ñu dugal dara ci lekkam jox ko ko moo yey nag ah waaw nañ waxante dëgg rek ku ndobin rey samaam boo gisee lu ñuul da ngay daw foofu mu teye d'accord naa ci de bu dee loolu la rek ki la nar a fexeel nu mu def ba fexeel la ga dee rek dina ko def waaye bakkan ci loxo yàlla la nekk ma di ko ñaan ma ko ñaan en tant que jullit en tant que frère en tant que soppe mu lekk lekku soxnaam wala ku mu wóolu ñu indil ko lekk na ko lekk man am na ñoo xam ni du ma waxanteeg ñoom parce que bu demee am na ñoo xam ni bu ñu àggee ci ci ñaaw jikko ba di fen di sosal nit nawloowuma la bay waxanteeg yow xalaatuma ko sax kon ñu koy ñaan te ñii koy def lii walla ñii tax ñu koy def lii jaruñu ko parce que Ousmane dootul moom rek dootul fameem rek neexula wax nag wala boo waxee ñu weddi ko dégg naa ñu ni dañu tas Pastef kayit lañu tas waye li ci xol yi ken du tas ça c'est la vérité gis nga nit ñi dafa am loo xam ne ñu bare comprendre ñu ko xam naa su pare nag réseaux sociaux yi jógati lu ñu wax baax na awma problème yooyu man gannaaw ngoog yàlla jox leen li ma xam ba xam ko daal lu sama baay bii déggul woon amul lu yonent bi déggul woon amul yàlla mi bind lu mu déggul sax amul xam nga lan mooy sama problème man am problème de conscience waaye ki toog ci gannaaw kiyam di ma saaga amul problème beneen bi ci des xale yi la jeunesse àgg nañu ci xol bu tàng foo xam ni foo ko takk weesu na ko te nit ñi bàyyiwuñ ci xel xam nga lu ko waral ñi dee ñëpp ñi dee ñëpp bu jullit weesoo ci ñoom ak ñi si nekk jullit tijaana ci nekk murida ci nekk xaadira ci nekk laayeen a ci nekk di suñu ay njabootu bopp kon bu ñu déggul kenn ku wax seen xol day tàng bu tiwaawan jotee ñu fax wuti tiwaawan bu tuubaa jotee ñu fax wuti tuubaa laayeen noonu ñaseen noonu cana ba noonu man sama xalaatu bopp laay wax kenn joxu leen paas xale yi bu ñu ñëwee est-ce que lekk nañu ba suur wala déet wóoru la nekkin ba ak xataay ba ñu muñ ko bu ñuy dem yëkkati sa ñaar dërëm bàyyi ko fa dem ñooñu bu ñu amee soxla bu ñu la déggul seen xool tàng nañu dello ci sago yi nañu dello ci xel yi mbokk yi wax yëpp wax nañ ko yàq taxuñoo jóg ñun defar ñu tax a jóg mais defar ci dëgg gis nga dëgg fu mu amul noflaay du fa am justice fu mu amul noflaay du fa am cooway bari rek ci ay pexe na ki complot te loolu dafay jeex xalaa kulli xaal

situation bi mu jëm ko dakkal mu jeex bërki démb dama dégg ñu dama gis ci télévision ñu ni dafa umra ji woon demoon na màkk itam aji ku jóge ci yonent bi war a mën a soppeeku foofu ku fa dem toog ci sayiduna muhammad looy wax war nga ko xam looy def war nga ko xam ma koy wax ni ko dañ daan wax ni sax dama contre dama contre man lu may contre lan lay contre lenn nag mën naa ko toujours ma wax ko mënumaa fal mënumaa folli waaye mën naa xëpp ci suuf si cere ji suuf mënumaa fal mënumaa folli waaye am naa xalaat ci réew mi te xam naa fu may jaar ñi ne nañ dama tàng ñi ni dafa naqari deret ñii ni li wax ken wax loowu ko ko man bama yàlla ne bama yàlla ne ba nga amé 18 ans lo defati ma bind ci la jël sama responsabilité bop hatta idha balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan قال ربي اوزعني باسكو ورنا ماني na ma ni dinañ ma dugal foo xam ni kenn du ma fa fekk ma lay ak sama borom kon lii may wax dama koy tant que Ousmane ñu ngi koy def yi ñu koy def diko tecc ci kasso bi diko metital métital réew mi du ñu nekk ci jàmm de man maa leen ko wax ça il faut le dire c'est la vérité est ce que am na ñoo xamante ni bii tamit moom la ñu choisir kenn ku nekk mën nga def choisir ku la neex ku nekk am nga sa choix su doon sama sago it président Macky Sall dinañ ni xale yi dañoo yàq teer bi dañoo def lii dañoo def lii dañoo def lii lan moo tax ñu def loolu. les causes moo tax solution du am mukk parce que tëj bi tëj bi tëj bi du solution de man sama xalaatu bopp laay wax kaso yi fees na. ñu baree bare damay dégg ñuy wax ni dañu doon génn sax di liggéey ñu fekk leen fa. ku defar bañ dugub sax ñu ne Ousmane Sonko daf ko bëgg nga defar ñu ñëw fekk la fa ni la tiib nga takk sa bracelet génn ñu ni la tiib ci Sonko nga bokk vraiment loolu moom honnêtement honnêtement nit war na ëppale boppam loolu gis nga kër gi nga nekk sax sama kër gi sama plat préféré xam naa ko mais sama doom am na plat préféré am joxe dépense nag bu mu tax ma ni ko bés bu ne lii moo fiy togg loolu lañ fiy togg bés dina ñëw mu ni ma fi ñeme ñukk fëgg ci voisin yi kenn dem lekk fa ceebu yàppam loolu ku ne sañ na ko nañu bàyyi naxante yi bis nga réew mi fi mu toll coo toog waxtaan la laaj maslaa bi ëpp na raayalante gannaaw bi ëpp na à la limite da dem ba boo dee seetaan émission yi ci télé bi da lay wóor ni léegi espèce su mbañeel gu bu extraordinaire moo fi am mbañeel goo xam ni xamuloo lan moo ko waral iñaanante bi soxorante bi boddi konte bi te ñu wax ni jàmm la ñu bëgg gis nga jàmm ku ko bëgg dafa am noo koy doxalee nañu delloo si xel yi parti au pouvoir yàlla ni Macky Sall moo fi toog de tel date ba tel date def na loo xam ni ñëpp apprécier woon nañ ko mooy duma bokk commentaires yi si nit ñi def nag intéressé wu ma ñàkk pexe la dañ ko dañ koo sës ci miir bi mënatul dem loolu yëpp allahu alam mais daal nee na bokkatul waaw kon li ci des mooy dem demin bu rafet jàmm am jàmm am jàmm am mais encore une fois ci cadre Ousmane Sonko lay wax parce que yéen a ma si man nag su ma doon def politique wala may ut di adhéré ci benn parti ci jamono yi ñu toll Pastef lay adhéré كوني ساج نكو ما واخ رك كوني امنا فو كوني امنا كولا صاف نجاغام باي نجاغام باي يال نكو يالا يا في ورا يا ني صاف بوم لا كوني امنا كولا صاف ñun ci cadre bobu lañuy waxé jam yàq taxuñoo jóg waxlu ñaaw taxuñoo jóg gaaral nit taxuñoo jóg kontur sama ay kilifa taxuma jóg waaye damay wax ni affaireu famille ak affaireu gis-gisu àdduna du benn boo waxee ñu ni Tiwaawan waxuñu lii Tiwaawan affaire beneen affaire la kilifa fa mm-hmm. sama ay kilifa rek a fa nekk yàlla nañ fi yàgg gudd fan yàlla may leen lu bare bare bare ci ay may ak kilifa diine yi fi nekk sëñ Muntaqa noonu màggalu Tuubaa bi yàlla na fi yàlla def jàmm ñëpp dem ci jàmm dellu si ci jàmm ñun contre ñu ñooñu déedéet waaye dafa am nag loo xam ni nag suñu responsabilité bopp la nañ ñu ko bàyyee parce que bu ma yàlla di duma ëllëg wala mu may laaj du laaj sëñ Abdou ni ko kaay réew mi dama cee bokk am naa ci xalaat su ma ko waxee su ma ko waxul am naa ci xalaat mais wax bi ma koy wax ça ne veut pas que dama contre wala dama lii loin de là loin de là waaye da ngeen ñëw seet si ma ñu waxtaan ci loo xamante ni bi wall wax dëgg yàlla man ci sama wàllu bopp préoccupé na ma bu baax a baax muy kaawu Ousmane sonk nañ ko bàyyi mu dellu si njabootam wala bon bokk buñ ko mënul bàyyi mu dellu si njabootam nañu set yëf yi nu ñu koy tegee ba mu woyof ñu bàyyi ko mu dem faju ji delluwaat ci njabootam bu continuer seen procès ñu xam mais am ci ni man daf ma yéem ci yëf yi durant deux ans ma di suivre yëf yi ñu dem ba benn bis ñu ni lañ ko doon toppee wax dëgg yàlla amul. donc ya a un problème nag nañ waxante dëgg quand même nañ waxante dëgg topp nit deux ans ci benn mbir dem ba mu yàgg nga ni non non doon dara amu ci lu xew kon lan la ak yenen yi ñu tek yépp ci kanamam est ce que est amul allahu alam yalla rek xam mais man dama ni dama ni lima ma ak Ousmane Sonko mu wax mako jusqu'à preuve du contraire amna lo xamni xam ni mom la. wax deug yalla wax deug yalla ben yoon lañu mës gisé mu ak man ak man te doomu gor la julit la xamna ni gëm na yalla wóolu na Muhammad lolou wóor ma kon nak duñu jog rek. ni ma bul waxanteeg moom bul toog ak moom wala boo toogeek moom nangam nangam nangam moo taxoon ma jël sama ay engagement bopp ni damay toog ak moom lii may wax nag dina metti ñu bare ah dinaa leen ko wax dina metti ñu baree baree baree bare waaye nag man xooluma ñooñu xam nga kan laay xool yàlla mi nga xam ni moo ma bind yàlla laay xool ak sama conscience su ma tëddee rek nelaw laa bëgg waaye tëdd di jëppi sama bopp ci li ma doon wax billaahi lu ma gëm laa leen wax lu ma gëm a gëm laa leen wax booba ba léegi dama ni pat di observer di xool situation bi rek di xool situation bi rek ba toll fii foofu yàlla dogal daje bi kon ñu ngi ñaan président mbirum Ousmane Sonko nañ ko teg ci suuf sa noon pax bu ko xóotal ëllëgay tax ëllëgay tax dégg naa fi ay kàddu yoo xam ni ñu wax ko ci jëmm ji wallahi alazim man dama naan su yàlla defoon mu toog tey yore Sénégal ñooñu nan lañ koy xoolee ci bët ah bu boobaa xanaa gars yi toxu de wala uti yeneen nationalité ndax dégg naa fi ñu wax ba géex nañ ko rey nañ ko rey xoolal ma wax bu ñaaw bi wax bu ñaaw a ngi noonu nañ ko rey dégg naa ñuy joxe ay prétexte ngeen baal ma nag ci terme bi gatsa gatsa cooki fin nee naa la mbirum Ousmane Sonko dafa ma intéressé ba dara duma ci raw keroog bañ koy jëlee ba ñuy dajji oto bi maa ngi tiim télé bi nii ba ñuy toj pare oto ma ni ah bi nag di ëpp na moom dëgg yàlla bañ koy arrêté ji ba ñuy dem këram di daj lépp laa seetaan sama ruq laay toog rek mais lu ne laay seetaan xam nga lu tax ñun dafa am benn mission boo xam ne xëy na sax bokkuma ci waaye képp ku yàlla nattu ku yàlla nattu laa wax nga am responsabilité ñetti nit topp la ñett laa wax de bu yowmal qiyaamatee di nga rëccu waxantuma la ak àdduna topp la nga war a xam li xew ci réew mi war ciy wax ngeen baal ma dinaa citer sëñ Abdoul Aziz baax benn yoon parce que daa daf ñu ko daan tere di ko citer ci waxtaan daf daan wax ni su ngeen dematee ci mbooloo di waxtaan waaye bu leen ma tudd wax leen yonent bi moo gën a gàtt parce que bu ngeen waxee seen baay keneen am na baayam bu ngeen waxee seen maam keneen am na maamam mais wax leen yonent bi rek mu jeex dama daan gis bu tabaski jotee wala korité bañu ñu julli ji ba ci ngoon day àbb poste rajo bu ndaw xutba yi ci Sénégal yëpp lay déglu nii lañ koy tafale rajo bi ci noppam Thiès dégg ngeen Thiès lu ñu wax waa Touba ndax sëñ bi ba na ba pare cene ba ndax xutba nañu ba pare responsabilité la affaire bi du nguur de du nguur du nguur yi du nguur yàlla nee na kenn ku nekk dinaa la laaj dinaa la topp ba nga jàpp ni yow rek laa mës a bind ci suuratu Taha yàlla nee na kenn par kenn Habib ak ñun ñi toog fii ñëpp ay ngal la ñu am ay responsabilité ay nit topp leen nag ku ñooñu fu ñu jëm kon yëf yi du nguur yëf yi du nguur yëf yi du nguur nañu delloo si xel yi delloo si sago yi kenn ku nekk ñu jox la sa cër. lii mu jéem ko dakkal parce que bu ko neexee mu yam fi waaw bu ko neexee mu yam fi jeexal na ba pare wax na ni moom day dem macha allahu taala ñëpp apprécier ko donc lii ci tegu yëpp nag day tilimalaat lu bare lu mu defaroon ci gannaaw wala gannaawam loolu moom mooy la vérité kon maa ngi leen di gërëmaat bu baax di leen sant maa ngi toog ak sama benn cousin nag muy Baba Gaye bii. nekk sama bras droit nekk sama confident mhm. moom itam dama ni ko woon pour mu ñëw Tiwaawan mhm. la jóge tey ci suba ah, comme dama ni ko woon da ngeen fii ñëw mhm. ma ko ni ko su ñëwee moom itam mu ñëw wétali ak wétali ma ak euh, yéen ñu bokk sànnante kàddu maa ngi nuyu sama jigéen ñu baax ñi le di ndey di soxna di lépp wax dëgg yàlla naka jekk nii la mës di demee olof Njaay nee na benn loxoy takk ñaari loxoy takk tubay waaye ñaar loxoy takk sér te lii yàgg na ci lislaam ca jamonoy sayiduna muhammad la sallallahu alayhi wa sallama ak loko ko jiitu woon sayidatuna xadija moo fi taxawoon ci wetam jàppale ko ba mission yegg fi mu yegg ku ne dégg nga ba tàyyi firikat yi di firi keroog ba ko jibril jëkkee dikkal ñu naan jinne laak nangam laak nangam laak lu ne ñu wax ko ko Sayyidatuna Khadija moo ko woo ba mu ñëw mu teg ko ci poojam ni ko bu ñu boo boo ko gisatee muy ñëw nanga ma ko wax yonent bi toog ba mu yàgg mu ni ko mu ngi ñëw mu ngi ñëw Khadija Sayyidatuna Khadija i musóoram malaaka mi def demi mu ni ko kon malaaka la kooku yàgg na fi alalam yëpp mu jox ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam taxawu ko ci biir taxawu ko ci biti sayidatuna Aïcha noonu képp ku baax ku ne yéen leen jur kon ay ndey ngeen c'est c'est normal c'est logique lu mel ni ngeen gis ko muy xew ci doomu jàmbur ngeen war a mën a jóg ànd loolu pour jéem ko xeex ndax mu yem fi maag yéen incha allahu taala man itam loolu moom ma fi toogloo man contre ma kenn daluma ci kew kenn contre ma sama bopp ndax nit du toog ci garab ba pare di ko dagg xanaa buñ ne dama contre waawan dama contre lu ne la ñuy wax lu ne la ñuy wax man dama noppal sama bopp fii ma toll nii guddi yi dama wóoloo dama seedelootul benn doomu aadama dama seedelootul benn doomu aadama ci lenn nag néew ma wóoluwuma kenn de waaye seedelootuma kenn dara comme xam naa ni كي تي كاو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سهلة ما يري سما بوب واخ جي لي لا وون غودو غات دوما غودل بو فكيني امنا تي لو خامني دا فا نيرو ولا مو مو لال خمغا افيرو واخ دا فا دا فا سنسيبل دا فا سنسيبل من nga wax dara fekk na nit déggé ko neneen interprétation yi moom kenn mënu ko bañ waaye yàq taxu ñoo jóg wax safaan taxu ñoo jóg taal réew mi taxu ñoo jóg ndax ñun amuñu fu dul Sénégal amuñu fu ñu fu ñuy daw dem waxtaan la boo xam ni dafa dal ci suñu mbokk moo xam ni ëllëg mën na dal ku nekk ñu doon ci échanger doon ci waxtaan di waxtaan ak ki nga xam ni tey jii mooy ndeyumbu ligi muy président de la république nga xam ni moom la yàlla jox réew mi responsabilité bi yëpp ci moom lay reposé wu

bu résultat yi génne neuf mu nekk président dix heures loolu moom am na ndax dama xam bu baax fi may wax parce que affaire tas Pastef ci ay kayit di sudur benn parti dem di euh, dem ci ay euh, dem ci ay euh, seen seen seize di ko di ko di ko def yenn yi vraiment loolu moom c'est c'est cest à dafa dafa jikko jikko bu dafa tuuti trop quoi. dafa tuuti trop jikko bu tuuti la nit ki mën nga ko xeex mën nga ko contre mën nga def lu la neex mais gis nga li problème bi mooy xol bu ci xas ba dugg dootu fa jóg te xale yi ma gis ak ñi ma ci jot a xam ñi ma ciy gis ñuy doxe nii kenn mënatul génn lii ci seen bopp moo tax nag damay wax ni xaw ma lu yàlla di def ëllëg mais Ousmane bu nekkoon président mooy gën a sonn ku fi jëm sa jaar loolu tamit il faut mu xam ko Senghor jàll na fi boobu daf ñoo ndax ba dem naa ñu 2000 Paris ce sera xaw ma Sénégal ce ko waaw ñu ngi en 2023 waaw fan la ani Paris ja ñun de fekke ko xaw ma ñu ah lacrymogène Abdou ñëw nekk fi lim fi nekk ba xëy dem euh, monsieur Forage et madame Moulin dem na Ablaye Wade ñëw nekk fi ba dem Macky Sall ñëw nekk fi ba dem gis nga Ousmane bu yàlla dogalee mu nekk président ñooñu ñëpp moo leen di gën a sonn parce que gëm loo na nit ñii loo xam ne yaakaar bi àgg na foo xam ni moom sax yaakaar naa ni xëy na mesuré wu ko rëy na trop parce que lii problème bi mooy dafa am loo xam ne moom la wax sénégalais yi jaay leen ko ba ñu jënd ko marchandise bi adapté ko di xaar nag le résultat moo tax ma ni la moom moo gën a dugg ne rubba waaye ñu ngi ñaan suñu boroom yal na ko yàlla génne ci lii mu nekk yal na ko yàlla génne ci lii mu nekk yal na ko yàlla génne ci lii mu nekk ndax bakkan nag nekkul ci loxo nit bakkan ci loxo yàlla la nekk waaye nañu ñaan yàlla ba ñu teggi tànk balaa safaan di xew su boobaa mu nek safara ju jur jangoro nak hmm. billahi wa kitabih man ma len ko wax ma ngi yamale fi kaddu yi suma ci juumee ngeen balma di len santat te di len massawu ci coono yi te xamni lima len ma rek suma xamewon ni lay deme yalla xamna ni fu ngeen nek ma fekk len fa ñu bokku tok waxtaan kon luma ci wax te muy safaan ki deglo kenen ki deg wax jek jubluwuma ci lu naqari nit hmm. wala lu neex nit hmm. dama doon wax rek li may sentir te di ko dund en tant que sénégalais hmm. doomu aadama laa comme ñëpp dama am xol comme ñëpp mën naa juum mën naa wax dëgg mën nga sa kii mën nga tooñ kii waaye loolu taxuma woon a jóg lu ci waay dégg muy safaat maa ngi koy jéggalu parce que doomu aadama matul waaye réew mi rek ka ñu ñor nag réew mi rek a ñu ñor amuñu lu dul Sénégal yal na fi yàlla def jàmm yal na fi yàlla def jàmm yal na fi yàlla def jàmm mais pour encore une fois il est temps ñu jéem a toog waxtaan yëf yi ëpp na. lii xew kenn xamul lan la xale yaa ngi dee ci géej gi ñii ñu rey ci manifestation yi kenn xamul nu ñu toll te ba léegi seen ay wajur a ngi toog di xaar ah. nañu jéem a seet beneen voie ak beneen moyen ak yeneen solution bu dul bii ndax doole yàlla rek am doole kenn amul doole ndax ku am doole bés dina ñëw doole ja ñu mbankaañ la dugal la ci juróom-ñaari perkaal gas ba mu xóot rokkas ay mool nit ñi dem añi naani seen ataaya yàlla des fi di yàlla rek kon nañu bàyyi xel loolu nañu bàyyi xel bés boobu maa ngi nuyu ñëpp di ziyaara ñëpp واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته